moo tax wala xale yi ñoom ñëpp di ma woow maam Ndiaye ah, ah, diw wax na la lii bu ko toon mais man bu ma tontu wala nañ ma dóor ba ma tëdd ma la tontu dëkk bi mën nga fay nekk te doo dégg critiquer Viviane ngi nii di xewal doomam bu xew mi passé day dégg de di xewal doomam Aziz Ndiaye bu baax bi bi mu xewalee doomam ba pare bi mu pare mu paree déggul dégg na lu ne Viviane mii bu paree day dégg Sénégal moo baaxoo loolu nit ñoom bëgguñu comme ça bëgguñu ku baax dañuy suur ndaanaan Sénégal dañuy suul ndaanaan bëgguñu ku baax ndongoloo moo ko wayoon moo naan ndaanaan jëf ci du nii ndax nettali ja Sénégal bëgguñu ku baax ak ñi ma ko sañ a Sénégal dañu soxor tellement que moo tax bu ñu yàlla bëggee may xoolal Sénégal koo gis ndoxum si teg koy bëgg rey ndax amul karaw nga dem Belgique seen karaw daanu nga dem itali seen karaw daanu nga dem Espagne seen karaw daanu nga dem Italie seen karaw daanu ñun senegal ndoxum siti du ñu bëgg a rey nu karaw amuñu dara ba pare Sénégal xool leen li ma ñi gën a soxor dañoo fangee seeni bëñ dafa bari waaye yàllaay léegi si xale bu góor la ci àngal la taxaw dangay baax mu naatal dëkk bi nga bon mu jàpp dëkk bi moxoñe ko jël nit ñi ñuulal leen ba ñu ñuul def leen ay vampire Sénégal lu yàlla bind yàlla na ma yàlla jéggal ci kàddu bi ak ñama ko sa wax ñun ñoo gën a ñaaw ñun dañu ñaaw tellement que dañu bon noo tax ñu ñaaw ak ñi ma ko sañ wax parce que ñu baax nga nga li olof Njaay naan ndox foo ko fu ndox daan taa heure boo demee fekk fa tepp tepp nañu rafetal xol yi damay génn gis benn tubaax bu jékki-jékki saa tourné rek wiccax karaw gi ma ne ko yàlla la teral ci taar bi ci jekk bi ci xeesaay bi ci gu daanu bi yàlla teral ñun nag Sénégal xam nga lan la ñu yàlla terale fiilu chargeur yu gudd iPhone ndoxum siti jàngoroy kajoor sibiru feebar bu ñaaw moom la yàlla terale te yàlla lim ñu yërëm as tuuti di indi niis wala muy taw sax kilifa diine ya tëdd a tax xasuma sénégalais yi parce que sénégalais laa lu mu guddi guddi damay ñibbi si Sénégal mais dama leen di jox explication rek pour ngeen xam ndax man bu ma yàqee daru sénégalais yi man mii ci jëmmu boppam yàq naa sama bopp ndax lu ma am Sénégal la waaye dama leen di wan ñun suñu ñàmbaarte bon la kooku ne woon bu nu doon baxal nit ñi jarul ñuy ëpp ku benn ndax ku bëgg a génn ñooy ñoo lay xëcc nga du ñun tàppe xol yi Sénégal na nuy seet lu rafet ñu koy waxal sunu nawle yi Sénégal na ñuy seet lu baax di ko génn réew mi ma toj da ngeen a dégg kenn wax ci waaw sax boo defee lu baax rek nit ñi duñu direct naan waaye yéen maam Ndiaye toju dëkk bi waaye yàqamti ngeen fët bu maam Ndiaye def rek ba ngeen génn écarté waaye maa tay kii sa problème li baax li ma def ci réew mi dem biir si Sidi Diop dëbb ko ba mel ni suul ak ba jëkk ñu ne waa déet ma dem Belgique dem ca Waali Seck ba dëpp ko ba mel ni suul ak bëjëk du ngeen ci mës a wax safaan rek ngeen wax moo tax yàllaay léegi sii dafa mat ci boppu koñ yi la taxaw njool ba mënuñu koo gis sol ay karampoom taxaw di kajj ndoxum siti jàngoroy kajoor woqatu nguunu ngaana ak sumbusu kajaa dina dinañ ci dee ñun fii moo soto su xol yi léeg-léeg nga jëkki-jëkk saara dox gis tubaab bu wiccaxu ma ne ko waaw waaw yàlla mën na lu ndax jekkaayu tubaab ba tubaab yi duñu posiwe yàlla da leen ko teralee tubaab yi duñu opéré def ay taat ndax seen beauté foo ko natt weesu na fa tubaab bu yeewu rek ba taxaw bali la bonjour tubaab bu yeew rek ba taxaw ne la bonjour madame tubaab bu yeew rek ba sangu ba bi cax karawam xëcc li mu am sol ko waaxu waa ñii la la leen yàlla deseel ñun de ko ci yeewu dangay mel ni nettatu dangay mel ni sumb su kajaa senegale bu yeewu rek ba jàkkaarloog yow ba bët tappaloo ba karaw ga mel ni afro kanam nga bànk mu war a sangu mu ne la salaamaaleykum na ngeen <laughs> sama ñibbi si Sénégal lii laa koy jooyee yàlla lu nga jéggal ma yàlla sunu borom ba jeeg jox ma am karaw gu daanu xees <laughs> allah xool woy doo lii dee vidéo la laa jóg kanamu sénégalais ba dara jàkkaarloo su ma ñibbee salaamaaleykum Mame Ndiaye Saba noonu la nga gis sénégalais bu yeewu rek war la nuyu ne la salaamaaleykum bi dañu yeewu ne bonjour et si Mame Ndiaye ñu ne la am ku la làq ne la kii mooy star Sénégal moom ñu ne bonjour toi, tu vas kon damay ñibbi Sénégal jàkkaarloo borom kanam yi salaamaaleykum maam Ndiaye Zaba seen nuyu sax dafa agressif seen nuyoo sax dafa agressif da ngay gis ko loolu romb rek ne salaamaaleykum bu lay duy sax du lay doon tubaab da lay doon naan la bonjour sénégalais dañ la doon salaamaaleykum yàlla baax na ma ñibbi moo tax ma créé xeesal ba pare man tubaab yi fi dañ ma naan c'est mignon nee nañ man dama mignon ñu ne ma ci habitu ma ne Sénégal oh my God c'est mignon naa ñibbi rek yàlla baax na ñibbi ci ci ci dëkk ba rek xëy di jàkkaarloog seen kanam yi rek ngeen naa ma ça va man dinaa namm bonjour man kuy namm bonjour laa siin de boo fa demee ni xaaw lañ la ni xaaw ni xaaw te ñoom taluñu kenn téléphone lañ tal ak liggéey fii da ngay romb tubaab mu ne la coucou bonjour ouh làq lu tubaab yu neex pare ñii mën nañu koole nag xooleen seen kole bi xoolal lii rek boobu ba tey ñu defaral ma ko defu dara gis ngeen mettiwul yàlla may na leen daal je vous aime maa ngi leen di bàyyi yéen ñëpp di leen nuyu di leen sant di leen gërëm di leen wax kontaan naa bu baax a baax ci seetaan bi ngeen doon toog di ma ko seetaan di leen wax na dinaa ñibbi si bientôt di leen wax na mu naa leen yéen ci jàmm j'espère cool nice damay ñëw nag parce que damay jàmb si sama diw yi dafa jeex damay ñëw jàmb si su ma damay voyager dem suun mais maa leen yéen ñëpp wax kontaan bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaan Sénégal jàmm ndax bu amee jàmm ñun ñëpp am nañ jàmm Sénégal bu ñu ci jàmm ñun ay sénégalais lu mënti am rek ay sénégalais lañ mais nañ bàyyi hypocrite nañ bàyyi bon nañ bàyyi soxor nañ bàyyi wax sa nawle lu ñaaw nañ bàyyi yëre boo sol jotula nga sol ko sa nawle di kontaan ci yéen bu baax a baax ti bég ci yéen di la wax je t'aime faax I love you ku ci am sa xulloo na xulloo ko ba mu jeex bu ma ko sippi